ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبتنه بالهادي wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii ci jumaay Tuubaa tey di juróom benn fan ci weeru Ramadan 1442 hijriya ñu toog ak sëñ Cheikh Awa Balla moom moom Cheikh Mamadou Fadal ñëw fii ci jumaa ji ni mu ko baaxoo def ànd ko ñun te ku ne xam Cheikh Mamadou sëñ Cheikh Awa Balla mi ba day daayira Moukhaddamatoul Khidma ma sosoo ci liggéey ba tey bépp jëf bu mu mës jëf sëñ Cheikh Awa Balla moom ñoom ñoo ma ko ànd booy gis jëmm yi tamit mel ni jëmm yi nga gis waaye moom mi ci biir mi ngi ci ginnaaw ndax lépp lu yombal liggéey bi mi ngi ciy dox mi ngi koy wax yëmut ci loolu tamit ndigal lii di ndogu yi ba mu mbokkoon ci ñi nga xam ne dafa jaaroon ci ñoom baba ba léegi ni teggul loxoom waxtu ci war féete mi ngi koy féete te yàlla rek tax mu di ko def bëggul sax ku ko wax kon nag bis ni tey mu ñëwaat fii nii ñu tolloo fi ñu koy tàllal ay kàddu mu soñ ñun ñi nga xam ñi ngi ci waar wi ak mbokki taalibe yi nga xam ñi ngi diglu ak fu ñu mën di nekk bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wa kafa ala ibadi sustafa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ah, xam naa nag eh, dana gàtt wala bokk dana jafe ndax eh, bu ñuy liggéey nga nekk ca gannaaw moom buñ ne laa kaay wax say wax da nga yuuxu ba sonn waaye ji ca kanam ñu war a wax jàpp naa ne euh, luñ fi wax moom dootu bëri waaye kon lu ñu gis moo am daa wax tey ne rek euh, wax naa ko léegi ñoom Moxtaar ba ñëw si kër ga ma leen ku nekk ci luy mën a laal waroo déglu ku nekk ciy wax te fii moom lu fi may nekk rek lu ñu laal la kon ñoo ngi nuyu ñëpp. di siyaara ñëpp tamit di sargal ñëpp di ndokkeel ñëpp ci bis bi nga xam ne ñu ngi jublu si Laylatul Qadr di ndokkeel tamit ci weer wi nga xam ne weeru yërmande yee weer weeru njëggal la weeru jotel la mu ñett yi nga xam ne yéen waxoon na ko ñu ci ndokkeel nit ñi di ñaan sama borom lam ci déyal mu defal ñu ko doon weeru Seydou Khadim tamit nag weer woo xam ne wax na lu bëree bëree bëri ba béy nga xam ne yaa xëy day bin mu waxoon. di ko teeroo weer wi ak mbégte mi muy am ba maa ngi dégg démb rek bàyyi sëriñ waa yaakaar naa di ci wax ay wax ju am solo Sëriñ Tuubaa doon wax kon weeru Sëriñ Tuubaa la encore gannaaw bi ñu nee weer jul yëpp nag ñu bokk di ci ndokkeel jul yëpp di wax rek ne eh, barab bii dafa barab boo xam ne kuy xam ne yaa ngi doon di noyyee Sëriñ Tuubaa wala bokk di wootewoo Sëriñ Tuubaa rek fii sa mbir barab la boo xam ne ba ko sëriñ bi di faggu du tey yaakaar naa ne li ñuy dégg li ci taarix ba la ba histoire sëriñ lépp ca Gabon la woon la ko yàlla defal la ko defal ci làmmiñ sëriñ lu ñu dégg ko mu wax ne malaaka yi ñëw nañ ne ko nañ ko defal or wala boog jamaa mu leen damaa amee donga yoo xam ne dama bëgg jàpp ci jinne yi ñëw ne defal or mu ne daa bëgg am njaboot goo xam ne daa bëgg jàpp ci ba yàlla baax ko ñoom ñoo ñu taxaw ko ba aksi fii teg ko suñuy loxo ak sunu jëwriñ yi nga xam ne moo fi nekk Cheikh Mountakha moo def ci liggéey bu mat yoo xam ne ak ñu nekk ñu ko ba kon kon barab bi barab bu ñëpp la lu ñëpp bokk nag ñëpp ci war wax rek ne euh, lii ñuy def euh, ndigal la loo xam ne lu sëriñ bëgg rek la woon mais wax toujours ne fekkee ne yaa ngi def dara def ca ren ba déwén gisoo ci lenn yokkute gu ëpp la nga yaakaaroon c'est bon génn ci ko seet leneen si mu nekkul foofa sëriñ bi dafa wax damay yëg gëm ne man la bokk li am soo jëmee wut si ko day watanu la boo yoree la mu bëgg da koy nangu sotti la ko fa nga ko bëgg te mbirum Sëñ Tuubaa moom nawetu ab nawet rek la taw bu doy suuf su doy njiw bu doy soo jiyee am la nga bëgg fii nag liñ fi gis rek loolu rekk la mooy ba ñu koy door ni ko sëñ euh, ji li waxee léegi rek du lenn rul rek xalaat la woon ndax dama gis ne euh, Égypte ñu nekkoon xam ne dañaan gis euh, fannaanuun yi wala boog dañ daan dem jël benn euh, benn restaurant fay ko li mu am ci weer wi bu dee million mi ne ko fay na million ñeent fukk ngir mu jël li mu togg ci weer wi lépp teg ko ci mbedd mi ku ñëw daal di def nga xam ne fanaan yi nga xam ne lañ nekk mën naa am lu bari wax nañ ci mën naa am waaye sëñ moom nekk xam ñu lu wér la ma gisoon ne jumaa booba wéetoon na bu ñu dogee ku ne doo sa kër jumaa ji tekk ma woo sama kilifa gi nga xam ne mooy si Amadou Rafa yi mu fekk ma sama kër benn bis ñu añ fekk maa ngi doon def ndogu yi fii ci Ndindi bi ma koy def di ko def ba 2005 ma ne Sëñ Rafa ma ne ko ndogu yi ko war yóbbu jumaa ja ndax daal di defaraan ne ma loolu day lu xel fet la bi ñu xëyee mu woo ma ne ma kaay ma ñëw mu ne ma la nga wax yaa ngi ma ne ko waaw mu daal di woo ku ñuy wax Baara Diop Baara daal di ñëw nii lan la mu wax ko mu daal ne bàyyi ma wax ak sama mbokki commerçant yi waxtaan seen mbokk yi ma ne ko nag man waxuñu ko ngir xam ne ñoo ko def nañ dem jox ko ña ko moom mooy mu xat xidma ñoom ñoo ko moom bi ñuy waxtaanee ñu moom ñu dem ci Serigne Saliou yaakaar naa ne toog nañ juróomi fan ak juróom-benn fan dem sëñ bi wax ko sëñ bi ne ah, bëggoon naa ko waaye xaw ma fu ma ko jaar waaye yàlla na barkeel dana barkeel kon waxoon kon yàpp naa ne àdduna bépp léegi ña nga ja ba ci Sénégal ñu na moom koy ko tudd rek ña ngay jéem a def ay bern wala bokk ay ndogu muy wax suñu Saliou yooyu ñu waxoon dana barkeel gis nañ ko ci tey ñu ànd sama borom barkeel googu ñu ànd ko ñëpp ba euh, liggéey bi nga xam taxaw ngeen ko ñu ngi xalaat lañ amoon xalaat waaye jëf moom mooy li nga xam la ñu mën a laal yéen ko def mooy lan te ko seen loxo xalaat bu bàyyee seen loxo ngeen def ko defin woo xam ne wii ku fi ñëw da xam ne Sëñ Tuubaa jeexalul dara kon euh, loolu yàlla na ko sama saxal sama borom fay ñu jëf ji nga xam ne ñi ngi koy jëf di ko jëfal Sëñ Tuubaa Sëñ nangul ñu ko tey soññu nag ni mu ko wax toujours rek damay wax ne mbooloo mi nga xam ne ñoo fi nekk man day mën naa maa ngi ci bitti waaye ñii fi nekk nga xam ne ku ci nekk da ngaa yor sa kër yor sa njaboot ñenn ñi ay daara alxuraan lañ yor di ko booleeg fii di jàngale def loolu ñoo xam ne ñu ngi jàngal alxuraan di jàngal nekk foofu ba boole ko ba noppi amul benn rabbi rabbi yoo xam ne leen fekk far weer ñu koy fay déedéet suñ tubaab wax nañ koy def kon nun dong yi nga xam ne nun dong yi nga xam ne xëy di tëdd di noppalu rek suñu yoon newu ci lenn nañu fexe ba lii ñu nekkal ñu fii ñu dem li nañ nekkal foofee wax naa ba tey ne day eh, bokk taalibe yi bëgg nañoo def waaye fi ñu ko def lañ xamut waaye maa ngi seeral di di seeral sam ñaari malaaka yi nga xam ne ñoom itam mooy xanaa it fii di ko fi def mu ndax ñi fi nekk day euh, li ma xam ci ñoom doomi dëkk bi lañ mbokki sëriñ bi lañu xam nañ lañu war a xam ñang ca lañ war a def waxtaan yi fi def rek doy na sëkk ab yor kon nag may soññu bokk taalibe yi leen xamal ne day liggéey baa ngi fii fu nekk nag am na liggéey waaye liggéey bii moom leer na ma ne ku fi def da am na nga bëgg ndax sëriñ boo waxoon na ne ci làmmiñ suñu fan laa ko déggee mu ne ku ci feeñ danga ci feeñ ba faw ñun de moom la ñuy xeeñtu yàlla nañu ko defal kon maa ngi soñ ñëpp di suñu sama bopp ñu gën cee taxaw gën cee jàpp yëmul ci ndogo yi dong na ndogo yi moom boo demee sullu ci la ci lañuy liggéey ab sullu rek la ci soixante-quinze pour cent yi mooy barab bi ba soñ tamit suñu mbokk yi xam ne ñoo noon Afrique yi nga xam ne ñoo yelloo woon dal yi ñuy sol ndax kare yu tàng na te dañuy bale kare yu di ko raxas daal yi nga xam ne moom la ñu sol di ko liggéeyee maa ngi leen bokk tali bi xam ñoon ab si ñoo woon ne saa yu jeexee ñu maa ngi soññ ñu gën taxaw bay jox ko suñu jiir mi di ko def noonu lañu ko an defee ak soññ bokk tali yi xam ne ñi ñu gën a taxaw rek xam ne barab baa ngi nii fii ne si may joxwaate mooy xalif bu fi toog rek nag xam leen ne xelam jumaa ji la ko def lu suñu waxoon da nga tax ñu loolu loolu loolu la ñuy dabu ku ci feeñ feeñ faaw kon nañ góorgóorlu li nga xam ne war raw na ñun ñu jokk dabaatul ci lii yàlla saam defal ak jub defal ñu tawfeex ak mucc wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne Cheikh Balla ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal ñu ngi lay ñaanal bu baax yàlla suñu borom sàmm la te may la wér kàttanal la ba li nga yéene liggéey ci toolu Seexul Xadiim bi nga def ko ndax nit boo xamante ne yéeneem gàttut ti ñaawut dañ ko war a ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi te wéral ko te li ñu xam ci yow rek mooy lépp lu ñuy jëm Serigne Touba waxtu nekk lu mu mën di doon yaa ngi ca biir. waxtaan bi nekk nga ci indi juróom ñeenti junni kopp waaw kay waaw wax na loolu euh, Balla ci li mu doon wax mi ngi wax ne mi ngi jotle jotle mbokk taalib yi nga xam ne ñoo nekk Italie te ji ci seen xaadim mbay mu nekkoon Pontevico ak mbokki taalib bi yam ko ànduloon loolu ren ren jii rek andi nañ juróom-ñeenti juróom junni kopp kopp yi nga xam ne day mën a def lu tàng mën a def lu sedd te ku a xam ne ne dañ ko daa jënd wut qualité bi waaye ñoom bañ ko tàmbalee suñu seexoo ball dox diggante boobe ak ñoom ca Italie ba tey boobu ñu nga toog pont wi ko nii mu wax leen ba bi woo ay nit dinañ wax ñu ne loolu daal waruñu cee def dara di jokkante téléphone yi sëtu suñ Modou Xari suñ Modou Far Xari doomi suñ Bas doomu jëkk seex na cinquante euros boobaak léegi nag at mu jot jëlu luñ bareen ji rek and nañ juróom-ñeenti junni ay ay kopp kon junni kopp waaw kon nga mën a ko am kon nag loolu lépp nag moom ni doon waxee lépp lu xam ne lu baax la mi ngi ni ba mu foofu ci kër Sëriñ di jokk ni di leen ko wax ñu sos ko fa booba baak léegi jëlul yoon kon sëriñ Cheikh mi ngi sant képp koo xam ne mas na laa soññi nga mas na laa soññ ci waaw waaw waaw képp moom mi nga xam ne ku mas a waaw waaw <laughs> waaw kay <laughs> waaw ñëpp ñi nga xam ne mas na leen a soññi ñu jàpp ci liggéey Sëriñ Tuubaa ji mi ngi leen di soññi waat te fas yéene futti ko ànd ak yéen ci liggéey bi ñu ngi ñaan yàlla suñu borom aar ñu ñu jubal ñu teg ñu ci suturaal ñu teg ñu ci yoon wi nga xam ne Sëriñ tubaab moom la bëgg te ñu ngi ñaan liggéey bi lum mu rëy rëy rëy rëy yàlla buñ ci gis suñu bopp yàlla ñu ci gis Sëriñ Tuubaa rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa داري وثبتا بالهادي الوفي